intention de fuir le parce que man fii laa dëkk du ma tabax sama kër gu bees nag tabax sama immeuble yu bees te ko fi wàcc di daw man amoon fu ma jëm fii laa am du dëgg donc je fais euh, je remercie les clientes qui m'ont fait confiance madame Niang Canada madame Fall Paris Espagne Italie enfin j'ai beaucoup de clientes qui euh, beaucoup de clientes qui m'ont dit Nabou nous on t'aime on te suit depuis le début et euh, je me rends compte que j'ai pas le droit à l'erreur je me rends compte dafa am cas boo xam ne Sénégal bi yëpp ñu ngi si doon laam-laamee am na wala amul am na wala amul mais cas bi man duma ko traité tant que cas Aziz Ndiaye bi rombul. am ngeen cas nag cas boo xam ne ngeen ko cas pendant des années mais instant yi nii mënuma génne cas bi ci programme bi parce que damay bàyyi buzz Aziz Ndiaye bi jeex parce que du ma sàcc buzz parce que man su ma waxee sama cas bi rek buzz Aïcha bi day parce que boo waxee cas bi bësu Aïcha Aïcha ñing bi day fay te bëgguma fay bësu jàmbur moo tax damay bàyyi ba Aziz Ndiaye tonton Aziz tonton J'adore ak tata kids ba ñu paree seen cas mais cas bi la ñëpp di xaar ci man te cas bi moom duma ko traité tant que cas bee jàllul voilà programme bi nag moom lépp ci laxasu au début programme la woon programme bi ñëpp dëkk dem ba leneen xew ci man daal lépp mënuñu ko wax te lu wax tamit wax lépp tamit baaxul assure daal naa bàyyi noonu xam naa ne réew mi dina yëngu ak doole laa ilaaha illallaah cas bi dama ko ñemewut sax dama ko ñemewut dama ko ñemewut xaw ma kan de waaye am naa bayre nag man nag am naa bayre nag de sama bayre bi du jeex bay xam nga bayre bukki <laughs> xam ngeen bayre bukki bayre bukki laa am mais du ma ko traité nañ bàyyi ba cas si Ndiaye bi ak Aïcha Ñing bi passé ma traité sama cas kaa bi moom bëgg naa sénégalais bu ci yor téléphone nga jëlal ma kaaw nag daaj bi concentré wu ci lu waaye xam waxal ma damaa bëgg ngeen jël seen temps di ko mbir mi di ko ni xale bii moom Sénégal yëpp xale bay fi gën a jël Sénégal yëpp nag boo fi gën a jar dama bëgg sénégalais xam ni Sénégal yëpp maa fi gën a jar maa fi gën a jar dëgg neexu mais en attendant trois points de suspension ba cas Aziz bi ak tonton ak Tata Kids romb tonton Jada Tata bi laay xaam romb après ma traité sama cas bi mais de toute façon je remercie toutes mes clients de la diaspora parce que ce n'est pas évident de me faire confiance vous n'êtes pas au Sénégal mais vous me faites confiance et ça ça me va en sûreté et vos Et je remercie de là, comme je dis tout à l'heure, le cabinet Maître Moussa C'est un cabinet notariat. Ils sont excellents, pragmatiques dans le répondant. Ils me suivent dans les conseils. Franchement, c'est le meilleur cabinet au Sénégal. Man c'est le meilleur cabinet au Sénégal, le cabinet Maître Moussa Et je remercie Dr Silla pour sa... dama ni ñaari nit laay waxal premièrement Miss Ndiaye laay waxal te bëgg naa nag Miss ñi la wër waxuñu la dëgg miis ñi la wër waxuñu la dëgg Miss Ndiaye ñi la wër waxuñu la dëgg te gis nga Miss àdduna des koy laalo àdduna Miss des koy laalo miis lu la mën a metti ci diggante ay Aïcha ak euh, tonton Aziz danga koy jël génne ko ci sa xol nga lëmas ko ba mu dëgër takk ci suuf xam ni wujje bokk wërsëg la miis ndax yow da nga fekk si xam nga ñun ñii ñun ñëpp a xamante ma may xam Aziz Ndiaye boobu maa ngi door a jóge Paris ma may xam Aziz maa ngi door a jóge Paris Baye Ndiaye sax laa ma may maa ngi door a jóge Paris ak ñoom Omar Kanté door a jóge Paris je suis rentrée Paris en 2016 laa jóge Paris ñëw Sénégal on se connaît c'est un petit groupe restreint dama ne Sénégal fii ñëpp xamante ku wax moo am ak ku waxul ku wax moo xam ak ku waxul je le connais très bien je connais Aziz Ndiaye je connais son frère Baye Alé Ndiaye je connais le clan je connais le groupe on se connaît on a des amis en commun dañuy gisante dañuy waxante fi yëpp a xamante ñu nekk ci secteur bi yëpp a xamante mais Miss man yow laay waxal waxuma ak Aziz waxuma ak kenn yow laay wax dina ma bëgg suma vidéo bi nga dégg ko parce que xam naa di ko dégg li ma bëgg mooy Miss lu la naqari rek lu la neex jël ko teg ko ci suuf te nit ñi boo leen toppee di nga tas sa sëy la neex dama lay wax nag kaay ma wax la bu tasee sa sëy gi di nga am lu la métti te ñi lay naan tasal daf la ñàkkal fayda waroon na la ko wax ñooñu bu ñu mënoon am ci we weewu Aziz barki Seydina Muhammad yow doo ci jot yow da nga yow ñi la wër ñëpp dañoo nopp Aziz te du ma joxe ay tur ndax li ma xam dafa bëri kaa yi dama koo téye nii ci réew mi kaa yi ñi laa ko téye ñi nopp Aziz ñoo bëri Aziz Ndiaye ñi ko nopp ci dëkk bi ñoo bëri xale jigéen ñi dañuy soob waxuñu dëgg dañuy foo ñuy commentaire di live yëpp naan Aziz day doxaan mais Aziz dafay doxaan mais wan leen ma beneen góor bu dul Aziz bu dul doxaan mais yow sëgam jaaykatu keccax bi sax day doxaan astama ak Aziz dama ne jaaykatu keccax bi si koñ bi day doxaan astama ak Aziz góor góor la te góor bu ko yor mel ni nga war a mel boo doxaanul nooy def ngeen gis ngeen góor bu doxaanul yéen man rus sama bàyyi la tax man rus sama bàyyi doo nga tax mais sama bàyyi day doxaan fii amul ku fi dul doxaan seen papa yi dañuy doxaan seen jëkkër yi dañuy doxaan fii ñëppay doxaan góor ñëppay doxaan ñun ban góor mooy nag ak jigéen 10 ans ci benn ci ci benn ci fëgg ci benn bool 10 ans kan moo koy defati yéen est-ce que nit ngeen man sama des fois des fois yéen da ngeen di dof doful mais yéen a gën a xam ni ak loo rafet rafet ak loo jongoma jongoma ak loo mel mel sa jëkkër yamul ci yow te mënul yam ci yow sax benn plat nga am benn plat nga am mooy sa ceebu jën don mooy sa benn plat bi nga am léegi da bëgg sa jëkkër takk la ne ci yow ne ci yow ne ci yow pendant dix ans déedéet day dem xool yi leneen changer plat bi changer affaire yi changer kii yi changer changer goût goût yi du ñu benn de dama ni cin bokkul safin ay jigéen lañu ñun ñëpp mais ku nekk nag ak sa cafka ku nekk ak sa tàngoor ku nekk ak sa tooy ku nekk ak li ngay dégager loolooy kaa bi parce que bu ñëpp ñun bu ñun kon kenn du takk ñàkk bokk guu moo tax nga am suppu kànje dem wuri doomu daa dem lii doo lay dëgg bokkuñu ñu cafka de bokk ñu cafka de man du nangu ko ñoom ñoom bokk nañ dagg mais bokkuñu cafka ku nekk ak sa goût goût fraise am na goût menthe am na goût poivré menthe am na goût augmentation am na goût forcé am na goût trafiqué am na man moom goût trafiqué laa dëkk man moom samay goût dama koy trafiqué man dara safuma man damay trafiqué ay goût macha allah damay trafiqué ay góor moo tax ku ma xam tey takk ma man damay xamante nit un mois deux mois nga takk ma du musuma am relation six mois mu mën na sa jëkkër un mois mu takk ma sëy bi nag mën na bañ a yàgg parce que yéen da ngeen di gëm ay xarfa xuufa dangeen ngeen di gëm ay ay njalar gëm ay njabar gëm ay dëdële man gëwuma loolu te ñàkk koo gëm nag moo tax ku ma ci woo ma bàyyi la ci parce que man góor jarul ma dem ci sëriñ di yàq ndax ku ne xam nga fi ñuy yàqee ku ne am nga xaalis bi ngay yàqee ndax kër gu mel ni ku ko am ñàkkoo 2 millions yooy dem yàqee mais daal di man sama yaay yaruma ci sëy di yàq man su ma gisee su ma duggee ci sëy sëy bi am ay yàq damay retiré waleen te à chaque fois ma retiré wu nag à chaque fois yàlla may ma ko gën nag kaa leen leen kaa bi déedéet koy traité ak Miss Ndiaye parce que Miss Ndiaye dafa soxla ku ko wax dëgg ubbil sa noppi nga def ci ñeex nga def ci kii nekkal nit góor bi nga am ñëpp bëgg nañ ko am su nga sa jëkkër jooju bu ma doxaanoon man ma jël ma wax la dëgg bi Aziz Ndiaye ba ma ne woon na bu I love you ma ne ko me too bu ma waxee I love you midi midi deux ma ne ko me too parce que mel na ni mu war a mel Aziz Ndiaye jantal na Aziz Ndiaye macha allah Aziz Ndiaye mën na ree Aziz Ndiaye mën na kaf Aziz Ndiaye yor na ay biceps yor na ay triceps yor na ay double ceps yow loo bëgg miis Aziz teral na la yow li nga am ci Aziz ñu bëri sëy nañ ko amuñu ko seen i kër ñaata jigéen ñoo fi sëy dépense sax amuñu ko seen waa seen jëkkër duñ leen jox dépense yow am yow waxoo ko dépense yow jooyoo facture yow jooyoo ordonnance yow jooyoo dara yëkkatal nañ la nii teg la ca kaw te suñu kanam la ñun ñëpp képp kuy sénégalais te wax waxu dëgg gis nañ ko fi jëkkër ji nga am jëkkëru njëkkante la bu la ay détails dugal ci ay fase naa ko ay gedd naa ay tas naa ay fay naa bul fay toogal nga sëy sa sëy sëy bokk wërsëg la yow xamoon nga ni ala kulli aal di nga ndax dangaa fekk si allah kulli aal di nga am wujju dangaa fekk si boo fekk si sax di nga am wujju fii ñëpp am wujju te ki ñi amagul wujju nag xaar leen seen time fii ñëpp ay takk góor ñëpp ay takk ma chérie ñëpp ay takk fii amul sax ay bu takkee ma boo bu takkee boo demee yaa xam boo bu takkee boo géddee yaa xam parce que ma chérie tojoo fenn meloo nenn tojoo fenn te meloo nenn tojoo fenn te meloo nenn loo waay am taar taar taar taar boo xoolee ci sa gi gis ko la dàq gis ko la dàq pour lan ngeen di fay seeni sëy dem toog am na ñoo xam dañuy fay dem toog France un an profité dañuy faju ji fekk dañuy kii loolu sama cas personnel dama ko si ruuxaar xam nga man dama bëgg cas toog un an di faju naan danga fay ma ne jéeg buux la fi jéeg ba sonn mais dama bëgg miis nga toog nga gérer sa sëy nga sëy sa sëy nga toog nga gérer Aziz Aziz góoru njëkkante la Aziz du pas Aziz nekk troisième âge ñun ñii si ak troisième age ñoo ngi bëgg a dee te muñ ci mënoon génn génn ci ndax danoo sonn ci troisième âge gi yow yaa ngi am góor première âge et demi zéro huit mois zéro huit mois nga am góor zéro huit mois góor boo xam ne macha allah moom moom j'adore moom moom moom moom moom moom euh, riz moom huile j'adore yow sa jëkkër li muy def ci ci ci ci ci économie Sénégal sax loolu ndam la sag la ndax au moins mi ngi mi ngi réduire chômage bi mi ngi bokk ci lu bëri effet du social yow lan la mis wat a wat Aziz mënoo koo for wan na mënoo koo lekk Aziz du raisin booy lekk wan na ko Aziz du raisin mënoo koo lekk wan na ko xamaan la mayonnaise la da ngay dagg sama morom cap da ngay cap comme cap nga ba sa mburu tooy da ngay bàyyi Aïcha mu ndaw cap Aïcha day cap Aïcha borom bu tooyee moom tamit un jour viendra Aziz jël beneen sumool Aïcha teg ko ci kaw Aïcha foofu la nag mais bul met amul met amul yàqlaate amul mer amul yàqalaate amul woote amul dara bësal sa xol wujju neexul bësal sa xol bësal sa xol da ngay bës sa xol nga toog nga sëy lii la nag de sëy na kaani waxal yow da ngaa njëkk rek ci suukar mais kaani gi xamoon nga ni toogu taa da nga ñam kaani Aïcha nag ñëw ci Aïcha ngis moom comprendre nga li ma la expliqué toogal nga muñ sa muñ Aziz góor bu baax la góor bu jantal la Aziz teral na nga oto bi ngay dawal gouverneur yi sax dawaluñ ko ministre yi sax dawaluñ ko miis bu yàq sa sëy ndax ay kii wax na say copines yi topp lu naan Aziz na tem pas Aziz tem miis n'écoute pas tes copines qui te disent que oui Aziz euh, su la waxoon dafa la waroon tàggu lu tax mu lay tàggu lu tax mu lay tàggu Aziz sa kilifa la bu ko neexee def la ko lu tax mu lay tàggu lu tax tàggu doo yaayam jabaram nga mais doo yaayam juróo ko xam waxante dëgg tamit yéen da ngeen jël position wu jabar multiplier ko def ko yaay du sa yaay moom mënoon na la tàggu peut-être moo gën a rafet si ngeen bokk kër jabaram nga et tout mais yëg na ni tàgguwu la peut-être am na yëg-yëg ni tàggu wa def na li bëgg a def mais sa borom kër la fekk si ko ci li mu bëgg parce que kaay la de mu neex la mu naqari la lii moom dafa waroon am te même bu dañee sax même bu dañee sax keneen dina fa ne maanaam yow même bu Aziz bàyyi woon Aïcha sax au pire des cas bu façon bu divorce amoon sax Miss Aziz mën naa la wax cinq personnes yu mu doxaan fii live and direct tey xam nga xam naa Aziz du bàyyi doxaan léegi au lieu que muy doxaan ñëpp xam ñu muy doxaan fii ñëpp xam nañ ko mu doon doxaan man xam naa ko sénégalais xam nañ ko léegi au lieu muy doxaan ba fekk imagine leen mu ëmbal mbedd nan ngay def bu sa jëkkër ëmbaloon ci mbedd bi mooy def loolu gàcce la sàcc ba ëmbal loolu loolu nekk c'est la pire défaite pour une femme mais au moins takk na par respect takk na indil na la mais yow jëlal nga boot luy kaa bi luy wax ji nga topp sénégalais yi naan la waroon na loo ko avertir non Aziz tem Aziz ni mu la teewee góor ñu bay teewuñ ko seen jabar je te dis la vérité man jigéen naa comme yow mais li may dund ci sama sëy gi mënuma la ko expliquer Aziz ni mu la yoree góor ñu bëri yoruñ ci seen jabar noonu toogal nga say sa sëy nga jubóog sa borom kër nga jël say ay jël ci intimat yi waxoon naa ne intimat toog ou day am bés jël ci intimat yi defaraat sa bopp parce que tamit da ngay beesalaat def jël moteur bi vidé ko def ci ay yokk ci ay huile yóbbu vitesse bi euh, yokk il faut nga defaraat sa bopp parce que Aïcha mii ma gis ah Aïcha nag régal na mag Aïcha mii ma gis ragalut Aziz ak kay bi c'est vrai man Aïcha bi war a téye Aziz naan ko nii oh my god euh, nu mu tudd ma chérie miss aaw buur këram aawa yaay yaay sunu aawa xam nga ñaareel nga aawa bi dafa dem macha allah yan ko yàlla xaari àjjana yow yéeg nga ñu place am léegi ñun duñ la wax ñaareel tànta dañ lay wax aawa yaay aawa yaay aawa yaay ma woyal la yaay sunu aawa yaay sunu yaay aawa yaay bëgg ñëwee ci kër gi dara ñaawul aawa yaay <laughs> sëy dafa metti nag parce que genre yi boo ko amee sa xol bi du ne man waxoon naa ne xolam mënu ne man man biñ ko takkee laa génne c'est c'est parce que euh, kii influenceur mujj influenceur moo metti parce que day nekk di falaale sa xol bi day metti mais yëpp fair play la rek yow mu ñëlul Aziz nga toog yaay sunu aawa yaay sunu yaay aawa yaay Aïcha dina am bés Aïcha moom dem la def nii barki Seydina Mouhamed un jour viendra Aziz Ndiaye moom Aziz moom du màgget Aziz moo nga xam ne ba tey ni mel la mel Aziz un jour viendra Aïcha un jour viendra mu takk keneen teg ko ci kaw Aïcha boobu nag Aïcha bu génnee di wax dañ koy naan ñun ñu ñooy génnaat di wax wala samay doom man moom day fekk mu retraité sama doom mooy génn di wax nan ko eh bàyyi li yaa defoon fii lii donc xam nga bëgg ma ngeen jël affaire bi def ko un débat c'est pas un débat ça arrive kër boo gis dina am concurrence dina am kii mais bu dugg ci internet bu dugg ci wax la waaye bul wax bul génn bul nii toogal ni nga toogee woon noppi ñëpp naw sa noppi toogal nga noppi nga toppatoo sa jëkkër xam ne ah bër wërsëg la rek il fallait que un jour viendra ngeen bokk ko voilà Miss nag man franchement je t'aime beaucoup je t'apprécie tu es classe t'es pas dans le milieu on te voit pas et tout ça et je sais franchement blague à part que c'est difficile mais tu vois c'est la vie et l'homme on peut pas manger l'homme c'est pas un fruit l'homme on peut pas le manger on prend un peu on laisse ay problème yu am sama commentaire gis naa ko fii mais dama leen répété xaw ma madame lii la xaw ma Lisa xaw ma Lisa sa jëkkër day doxaan fii góor ñëppay doxaan ñaar moo am soit jàppagoo ko ko soit jàpp nga ko mais dangaa moom te bëggoo tas soit jàpp nga ko ba sonn mais yow yaa bëggul tas amoo choix amoo foo jëm ba toog ñaari cas moo am day doxaan mosoo koo jàpp mais yaa ngi dute mais mosoo koo gis dañ que day nëbbatu di nga def bu ci laa jàpp nga ko ba sonn mais comme amoo foo jëm amoo xaalis indépendant au financier amoo def donc tu restes mais góor ñëppay doxaan alerte rouge alerte rouge tous les hommes trompent <laughs> ngeen noppalu alerte rouge alerte rouge tous les hommes sénégalais draguent tous les hommes ivoiriens draguent góor ñëppay doxaan chéri loo neex neex loo saf-saf am na ko la gën a safle xale yii danoo safle ñun sax deuxième âge ñun 30 ans yi sax léegi ñu commencé regresser mais xale yii danoo safle danoo judd safle naturel xam nga li ci saf yéen góor ak saf c'est une longue histoire góor recherche le saf donc noppalu leen ngeen dugg ci commerce bi ngeen liggéey noppal seen yaram gi ngeen bàyyi góor ñi góor kenn du ko lekk ba mu jeex man vraiment man bu ma amoon jëkkër bu ma may ay millions na takk na takk mi naw mi kàmbal xool xam nga yoon néew si mu hmm, yoon dugub nga ma ci kër jox nga ma kat-kat hmm? yaa may topp topp guddi yaa ngi ma jox sama gos hmm? c'est important dose bi mu ngi ñëw normal maa ngi voyage première classe mais lan sama yoon lan moo ci sama yoon tatkal boo sonni di nga toog mais di mer di tas kii yooyu amu fi sens man duma ko def de kii mu ne sonn et le respect mais quel respect mais de quel respect tu parles ma chérie de quel respect de quel respect tu parles de quel mais vous parlez de quel respect respect weesu gën sa jabar takk ko yëkkati ko lan ngeen bëgg lan mooy respect si yéen du takk jabar bu dee respect moo du takk da ngeen juum ils sont irrespectueux dinañ takk vous êtes malade vous góor takk la jëlee la ci pauvreté dugal ci luxe nga màgg ci luxe yaru si luxe dem si ay quad sali ba mu doon dem quad sali foo leen nekkoon du da doon dem ñu da doon dem sali def quad naan nii vurum vurum ci désert bi léegi ay saa yi mën a Dubaï di vurum vurum léegi luy wax jëluy kaa bi ba respect Aziz il est respectueux Aziz a bien traité son épouse moi je le dis il a bien traité son épouse et s'il veut épouser une femme c'est son choix le plus absolu et son droit devant Dieu et les hommes yàlla dafa ni ba ñeenti jabar yéen doo ay musulman ay ay yéeféer ngeen yéen sénégalais yëpp ay yéeféer lañ parce que mënuma comprendre yàlla mi ñu ñëpp di julli mais ndax ngeen julli kon léegi ndax ngeen julli nga estimé ngeen yàlla ni góor am na droit ba ñeent nga xam ko sa nday xam ko sa ndayu nday xam ko sa baay am ay jabar yow ma ne sa jëkkër du am keneen pour kan yow yaay kan ak foo toj ak foo toj foo toj ban respect respect weesuul nga takk la takk la dugul la ci kër yor la yor sa njaboot yor la yor bu normal ba képp kuy jugee Sénégal naw la ñee la lan nga lan mooy respect lan mooy respect mais vous êtes malade en fait moo tax góor ñëpp a ngi takk parce que da ngeen jabaate les femmes là vous jabaate yéen ay duma wujjee ay duma nii duma nii moo tax seen jëkkër yëpp a ngi doxaan moo tax li leen metti man teguma leen ko de leen metti mooy ñoom ñëpp ñu ngi coucher dehors ils sont tous en train de coucher bi sa jëkkër bu takkul sax d'accord naa sa ndam la mais li muy def ci biti xolal sida baa ngi ci dëkk bi MST baa ngi ci dëkk bi jabet baa ngi ci dëkk bi y a plein de maladies contagieuses qui sont dehors bàyyi sa jëkkër muy doxaan nag danger la le mieux mooy mu takk présenté la nga xam yow ki ngay wujjal kan la mais ñàkk fayda weesuwul yow ki ki ngay wujjal kan la ñàkk fayda weesu sa jëkkër yi dem si hôtel yi sa hôtel sa jëkk xolal hôtel yi ak baar yi homme marié yi ñoo ko feesal les hôtels là les bars hommes mariés ñoo ko fees appartement meuble yi ñu gis yëpp seen jëkkër yi ñoo ko jël xale jigéen ñi donc mu neex leen ak mu naqari leen donc le mieux moo tax mu mu gën mu takk le mieux moo moo mooy mu takk vraiment vous êtes fatigant vous voulez que l'homme reste avec vous toute l'année des dix ans cinq ans de mariage avec vous vous êtes qui vous êtes qui what your pussy can do you even can break the bed what's the problem La plupart des femmes qui parlent comme ça, elles ne peuvent même pas bouger le rein. faut les voir avec les reins bloqués là. Elles ont déjà les reins bloqués, les formes bizarres, un visage compliqué, mais c'est elle qui dit que hein, mon mari est Ton mari va voir ailleurs. Que tu le veuilles et que tu le veuilles pas. Que tu le saches et que tu ne le saches pas. Il est en train de mourir dehors. Voilà. Il mouille bien dehors. Ça, c'est ça. Euh, mon mari ne veut pas aller dehors ma suñu mbokk. eh rentre chez ta voilà neexalatuñ kenn xam lan la takk na mer nga ñibbi sa kër yaay di nga xam ne kër yaay kër yaay de du kër kër yaay ñibbi sa kër yaay bu la bu la bu la problème yi méttee ba métti la kenn man léegi conseillé kenn calmé wu ma xam lan la ku sa takk nga mel ñibbi sa kër yaay ñibbi sa kër papa voilà dem kër baay kër baay. bu dee seen baay fekk leen foofu de seen baay mën na mën na leen ay raaya ki fóon dem leen inceste la loolu inceste la tudd inceste <laughs> les cas de ce pays m'intéressent j'adore les cas mu ne rentrez chez vous rentrez chez vos papas hmm? maa ngi ni ba sama duma dem maa toog parce que papa amul fóon amul raay ma taw yooyu sociaux di yuuxu daw ma fii laay toog damay sëy suñ ko sàpp amul raay amul fóon ma toog si réseaux naan daw ma tasuma parce que raay ak fóon jaral na man xaru excusez-moi dama nekkoon si téléphone bi j'étais au téléphone euh, revenez revenez revenez revenez revenons revenons revenons revenons rajeunir oui parce que dafa am beneen cas bu bees mais je le traiterai après j'ai rajeuni je suis plus belle plus joyeuse vous savez quand une femme devient plus joyeuse c'est parce que <laughs> quand une femme devient plus joyeuse c'est parce que parce que mm-hmm, pas bonne suspension bàyyi ba cas mais vous êtes fatigantes les filles laissez-le épouser en plus comment une femme peut rester avec un homme yow ku góor ki nekk ci sa kaw yow kase sa yaram bi yéen ragaloo leen yéen yaram yaram bu tas yéen yaram bi mooy tas da ngay jékki-jékki rek sa épaule bi wàcc. si tu veux être fraîche là il faut que ton homme aille ailleurs avec ses co-épouses bu demee ci wujju bi sa wujju bi bu def amee ñaari fan ñëw si ñëw ñaari fan doy na si jigéen mais jigéen boo xam ne yow sa jëkkër 24 heures sur 24 yow la 24 heures sur 24 xoolal sa sa pour ñu def pour ñu def science de la vie ak médecine fii dafa am benn colonne bu tudd le <laughs> lëkkaloo rectangle bu tojee xoolal ko rectangle mooy tax doo am faar moo tax ngay am ay ventre plat léegi bu sa jëkkër tojee kolongu kolongu rectangle hmm? da ngay commencé màgget ay tànk day commencé bañ moo tax wujj dafa baax parce que day dem fële ñëw ci yow dem fee ñëw ci yow léegi bu demee def sa defar sa kër xam nga def ay gommage sein visage ay intimement sa yaram bi su ñëwee nga yëkkati ko tourné ko capté ko mu dem na le affaire yi noonu mais yow rek ci kër gi yow ci kër gi bu ñëwee rek guddi rek ngeen dem en avant chaque guddi rek en avant tous les soirs en avant mais bu yàggee sa avant day peer fii day peer ak fii day peer ak yii yëpp day peer yii day peer yii day peer si jigéen te jigéen warul peer ak sa yii yii day yàqu parce que dalay nag naan la ni <laughs> yàlla bu la xooj allez télé si yéen de bàyyi góor ñi ñu takk baax na man bëgg man bëgg man moom franchement je ne je veux pas être première bëgguma mosuma bëgg a nekk aaw parce que amul sens aawa góor dafay jàng yor kër ci yow aawa du dara aawa xam na la jàng yor kër la aawa mooy fondement mais kër boo gis finition la du fondement est que mos dëgg ci kër mooy aawa léegi da waa ji étage mu xool mbedd mi mais su bëggee gis géej gi foo mu teg deuxième étage mais su bëggee am nag vue foo mu teg troisième étage ci troisième étage nag ngay taxaw di séen nag mbedd bi di seen nag géej bi ak vague bi boo bëggee nag gën a am air de mer teg quatrième étage loolu mooy ñeenti jabar waaw man bañu ma sax nekk ñeenteel franchement man du moment que maa ngi ci buum rek sama jëkkër aussi mun ngi jox sama dose man daal sama kër papa daal dama fa dem parce que amul phone amul raay sama papa duma foon duma raay sama papa dee na sama yaay aussi mënuma foon mënuma raay donc je préfère rester dans les bras d'un homme bu may foon di ma raay di ma nax chérie tu es la plus belle je t'aime tu es celle qu'il me faut tu es l'amour de ma vie man fen ma fen ma ment j'adore qu'un homme j'adore que mari me mente mon j'aime ça chérie ment Dis-moi que je suis la plus belle. Or que c'est faux. la petite fille du quartier qui est la plus belle. Mais chérie, moi, moi quand même. Chérie, dis-moi je suis la plus bonne au lit. Mais c'est pas Tu as quelqu'un d'autre dehors. Mais c'est pas grave. Moi, moi. Moi, Laissez, laissez vos maris vous mentir, mes amours. <laughs> Des le mensonge, c'est doux. De... Des <laughs> le mensonge, c'est doux. Nabou, yaa yaa mos ngir ñetteel nga yaa muus. ngir ñetteel ma man ñetteel moo ma jig ñaareel sax jiguma parce que ñeenti fan laay am ñetti fan laay am dafa bëri man dama bëgg programme man bu ma amoon maanaam ñeenteel sax moom a gënal parce que bu demee si aaw bi benn fan dem si ñaareel benn fan dem si ñetteel bi ñaari fan ñëw si man benn fan man benn fan rek doy na ma parce que bëgguma sama colon bi toj je n'aime pas que mon mari chaque nuit là chérie couche-toi par là fais comme ça tourne <laughs> tourne assis comme ça debout comme ça mais le pied comme ça yooyu day metti sama yaram bi mënuma <laughs> ko ah mënuma ko mënuma ko te si tourne comme ça tourne <laughs> ah j'en peux de moi bi lay ku ci baabul tourné gu metti gi di nga xëy rek dee création di laay góor ñi jaruñu tourné de yow na ñëw rek vite fait bien fait waaye tourne tourne <laughs> <laughs> j'en peux plus. Mmh, Nabou euh, réew nga. mais non réew ma je dis la vérité. imaginez. chérie tourne. xam nga góor ñi léegi dañoo bëgg ay affaire yu bees naan la tourner. tourne ah du noonu tourner sëggal <laughs> nga ne sa ndigg bi. <coughs> mu naan la déedéet nii ngay sëggee nga ni <laughs> ay ay ay ay comme comme comme barki yàlla say Sénégal comme dëkk Russie pii pii pii ah bilaahi lii dafa metti de il ment il te gâte mais quand tu cherches problème il fuit oui mais en fait moi j'ai compris le système c'est le système c'est quoi Les hommes aiment nous mentir. Mes amours, laissons-les nous mentir. Et au fond, on connaît la vérité, mais laissez-les nous mentir. Quand ils nous mentent là, au moins ils sont, ils sont, ils sont sûrs d'avoir le pouvoir. Mais le vrai pouvoir nous appartient. gis nga góor bu lay fen bu moom moom mi ngi lay fen de mais yow xam nga ni yow da nga xam bàyyi ko ci biir bàyyi ko mu lay fen comme moom loolu moo daal xelam dina fen moo daal xelam mais bàyyi ko mu def di daal xelam yow aussi nga def di sa xel c'est chez moi là lan moo ci sama yoon ku ma fen man nga fen ma nga ñàkk maa fen je suis chez moi boo deewee bu ñu ma joxul sama sama sama héritage sama héritage a ngi nii samay doom boo yorul ma yor leen kër gaa ngi nii j'ai ma maison je suis bien nga fen ma nga ñàkk maa fen j'en ai absolument rien à foutre li ma bëgg mooy 21 heures na la fekk ci néeg bi nga summee kase soxluma leneen 21 heures daal bu ma la woo tëdd si néeg xaar ma foofu Baisse-toi. Tourne. Chérie, fais comme à la fekk <laughs> euh, chérie, comme à nga naan nii. gis nga barki yaa sa colon bi bii bu wàccee nga xam ne lépp dëgg la yéen yabaate woo sax. mu xoolal ma chérie je di ai dit ne stressez pas pour des hommes. gis ngeen cancer du bi ñuy dégg stress rek moo koy joxe. cancer du sein bi ñuy dégg cancer du sein bi rey muumi yal na ko yàlla xaari àjjana stress la moo tax xoolal. yéen daal 21h rek na nekk ci néeg bi lu mu leen wax lu mu leen wax yëpp garaawul 21h rendez-vous dans la chambre bu sa humeur ñëwee nga toj kër gi bu dee sa humeur ñëwul nga def nii rek yow may ko benn tànk bi di ko seetaan c'est simple après tu te tu jug dem tu gères tes enfants tu gères ta vie tu as tes occupations tu as tes copines tu vis une vie laisse laisse-le laisse-le faut pas les suivre ils vont vous tuer ils vont vous rabaisser ils vont vous la femme je vous dis Vraiment, qu'il ait 5 femmes là, on s'en fout. L'essentiel, se dépense maintenant. Il te loge, il te nourrit, il prend soin de tes enfants. Et la nuit là, boule comme dara. Ah, chérie, je suis fatiguée.